ay sénégalais lañ sénégalais li ñu tënk yaa ne ñun ñëpp dañ ci d'accord mooy la constitution du Sénégal Sénégal tànn république ne moom lañuy ñuy dund république repose sur trois principes sur trois piliers wala un principe muy la séparation des pouvoirs mooy principe boo xam ne constitution bu Sénégal moo ko bind constitution bu Sénégal ne le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif c'est-à-dire pouvoir judiciaire kenn yilifu ko ci Sénégal Bassirou Diomaye Faye ñu fal ko président de la République muy def déclaration je crois que c'est le 3 avril wax ne day organiser les assises nationales pour redorer le blason de la justice sénégalaise c'est une insulte aux magistrats S'il y a quelqu'un qui doit redorer son blason, c'est lui qui a insulté les magistrats. bu amee ko war a redorer blason diggante ak justice c'est Ousmane Sonko qui a insulté tous les magistrats kon encore fois wax boobu wax bu garaaw la loolu la moo ñëw moom la mu tudde ko modernisation de la justice gis nga may mun a bu fekkee justice dañ ko war a moderniser c'est les magistrats ak les familles judiciaires ñoo ko war a def et non président de la République pouvoir que ni pouvoir judiciaire dépendre benn pouvoir kon ñoom bu ñu amee lu ñu jubal seen kër ñoo ko war a defal seen bopp est-ce que yow yaakaar nga ne Bassirou Diomaye Faye ñeme naa organiser des assises sur l'Assemblée nationale su ko defoon député yi wax ko boppam lu tax mu yëpp magistrat bëgg leen ko def te ñu ngi ko wax député yi. mais lan moo tax pouvoir judiciaire bi dama wuyu. ak ah, ñoom seen affaire la. peut-être qu'ils sont d'accord avec lui. Non, peut-être qu'ils sont d'accord avec lui. sur la, nécessité de réformer et de moderniser. de Sénégalais bu ñu d'accord nag Bassirou Diomaye Faye ci mu viole ma ma gëm ne dañoo war a viole parce que am na am na ay assises mais UMS euh, sous la bannière de de de de Télico. oui moom moo ko moom moo ko initié woon d'abord un c'est anticonstitutionnel li mu def c'est inopportune parce que déjà des réflexions sur la modernisation de la justice bi am na ba noppi depuis 2018 deuxièmement c'est un précédent dangereux parce que nag gis nga bu ñu ñii bu ñu leen bàyyee il y aura non seulement ils sont passés de l'opposition insurrectionnelle ils vont installer une gouvernance tyrannique au Sénégal et c'est bien de commencer bu ñu dellu si. ci les mais gouvernance tyrannique comment. tyrannique. comment ça un une gouvernance mooy un président la République chef de l'exécutif qui s'autorise de convoquer des assises pour moderniser la justice pour redorer le blason de demain et puis li gën a grave on convoque des des détenus des voyous qui ont failli faire la République du Sénégal ki ont brûlé des biens des biens publics et privés ñu den woo ñuy fekk ay di di woote bay woo ñoo xam ne dañoo rey un magistrat euh, un membre du conseil Bassirou Diomaye Faye a insulté la magistrature. mais Moustapha Moustapha euh, je pense que bu ñu nee dañuy waxtaan ci réew ah. Hmm. Euh, jaadu na ñu waxtaan ak sénégalais yëpp. Maymuna. xaaral rek xaaral rek Maymuna Ndour déglul Maymuna. jaadu na waxtaan nañ ba pare. d'accord la campagne électorale waxtaan la. c'est ça le dialogue national. c'est le dialogue entre les acteurs

Euh, commission lan mooy CNRI commission nationale de réforme de institutions. ngeen taxawal seen. lan CNRI boobu. réforme des institutions non, non. faire au président pour des. Ouais, réformes pour des, des réformes des ah, yooyu justice yi la bokkoon. mais bien sûr. bien sûr déjà que liggéey boobu ñu ngi fi ah. waaw non waaw waaw d' accord d' accord bu ñoom téléco UMS bi. d' accord mais ak yeneen ak yeneen ak bu ñu toppee sa sa sa raisonnement. président de la république warul convoquer des des warul mettre en warul mettre en place une commission pour non. réfléchir sur la réforme des institutions ah, dont l'institution de la justice globalement on dit que le président c'est la c'est la qualité et je, je reviens toujours à la constitution du Sénégal que la le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif président de la République du moo leen di wax nii ngeen def wala nii ngeen di bañ ci des mooy dem président Macky Sall mettre en place une commission nationale chargée de réfléchir de lui faire des propositions de réforme des institutions. d'accord dont la justice ça ne me pose aucun problème. c'est d'organiser un dialogue national pour redorer le blason de la. dont la justice. c'est ça ce qui la justice. mais bien proposition c'est-à-dire que moom ne ko un rapport. sur les réformes institutionnelles ça ne pose aucun problème mais li garaaw mooy ñu dajale ay nit ay détenus ay anciens bandits naan dañuy réfléchir sur sur la moderne et le plus grave c'est qu'ils ont changé de mot mais le mot initial bi nga xam ne moom la Bassirou Diomaye Faye utilisé mooy redorer le blason de la magistrature bi tegu mooy il parle de réconcilier la justice avec le peuple sénégalais peuple sénégalais amul problème ak justice ñoom wéyu Pastef yi ñoo am problème ak justice mais il y de la justice bu ñu demee bay waxtaanee. y des victimes de juge. oui des victimes. y a pas de la justice. y des victimes faut jamais généraliser les choses comme ça. si y a des victimes. de la justice y a des victimes de juge peut-être de magistrat. vivre nañu intermet boo xam ne euh, les procédures n'étaient pas systématiquement. respectées les enquêtes n'étaient pas systématiquement menées largement. parce que ñu ngi nekkoon ci période de tension ah, euh, boo xam ne ñu enquête yi non non xaaral defuñu ah, respecté wuñu phase enquête yëpp bu ñu demee bu ñu yóbboo nit ñi ci nga xam ci nga xam ne moom mooy euh, ci ci juge yi respecté wuñu yenn procédure yeek yenn dispositions yi da ngay ñëw rek ñu an la mandat de dépôt nga ñëw ñu an la mandat de dépôt nga dem manifestation ñu jàpp la mandat de dépôt gars yi nekk ci kaso bi li lay wax nag c'est important Mm-hmm. Sénégal dañ fay toog nit ñi nekk seen jàmm Ousmane Sonko jigéen jiiñ ko fi dara mu woote mortel combat woote cooki fee woote gatsa gatsa nit ñi li leen génne ci mbedd mi Ousmane Sonko moo leen génne ci mbedd mi. d'accord bu fekkonte ne dañ koo tooñ mu génne leen ci mbedd mi du ma problème mais la leen génne ci lañ ko la ko dal moo ko teg boppam un. deux mu fenn Sénégalais yi ne leen Macky Sall Antoine suñ sëñ Bassirou Gueye ñoo ma complot ñoo jël utiliser Adji Sarr pour complot ngeen bañ a nekk élection te moom bi mu koy xam ne ne waxul dëgg nit ñi wàcc ci mbedd mi ñu yàq ci alalu jaambur yi yàq ci alalu état bi ay nit faatu ci caay-caay gu toll noonu ku ko wootee nit ña nga war nañ leen jàpp ñoom ñëpp état bi perdre cent froid am. mais non non non l' état bu l' état perdre sang froid musiba am. état bi perdre froid l' état a gardé son froid bu l' état si la l' état avait perdu son sang froid ay milliers de morts. ñu acculé justice bi. acculé wul benn justice ñu acculé justice bi avec des dossiers dans tous les pays du monde fu ay saay-saay jóge di taal alalu jàmbur di taal alalu réew mi. les forces de défense et de sécurité la leen war mooy ñu aar askan wi seen alal ak seen i bakkan. Ah. la war justice mooy daan ñu ko def. alors Moustapha aar askan bi. ci ku yàq alalu réew mi waa alalu jàmbur aar askan bi ci ku teg des actes insurrectionnels aar askan bi ci ay bandi yu daan profito ci mbir yooyu di di jël alalu jàmbur di attaquer ay intérêts euh, euh, privés internationaux d'accord mhm. mais tamit yaayu a eu des victimes euh, jël nañ plus de mille personnes mhm. tëj leen am na ci ñoo xam ne ils ont eu la malchance d'être au mauvais endroit la mauvaise heure. xam nga may mun a euh, yow mi kenn jàpp la man ni kenn jàpp ma xam nga dafa yomb trop sénégalais bu ñu jàppee ñu ne non sama doom dama ko yónni woon da doon liggéey wàcc argument bii la ñenn ñi di jox waroo gën a gëm seeni wax li la magistrat yi ak li police wax gendarmerie may mun a xaaral ma rek parce que les magistrats les police et les gendarmes et les ñoo yor sa sécurité gis nga jàpp ñu ci kenn koo xam dañ ko fekk ci kawam lala mu tëdd di nelaw à moins que ñu enquête ba xam ne il est impliqué dans dans dans ce qui Mohamed ma kii may mun a bul fàtte li li dal Sénégal ak ak nit ci wax lu dul dëgg mu woo aw askan nit ñi wàcc mbedd mi taal di taal alalu jàmbur di taal alalu doomu réew mi di taal alalu doxandéem yi dans n'importe quel pays au monde su fekkoon on n'avait pas les forces de défense et de sécurité aussi expérimentées aussi calmes et les magistrats aussi calmes y aurait un un bain de sang terrible dans ce pays mais bu ñuy bu ñu demee bay waxtaanee justice ñu dem ba ci interprétation citoyen yu bari ñu jàpp ne euh, bu dossier bu jóg quelles que soient les preuves mise sur la table mu am ay citoyens yoo xam ne amatuñu ngëm-ngëm ci ci justice bi bu ñu demee ba di ko waxtaanee waxtaan bi mun na nekk lu inclusif c'est-à-dire ñu yaatal euh, boole pàccu réew mi yëpp ñu ñëw toog waxtaanee mbir mi ay politiciens ñoo am problème pouvoir tey bi ak opposition démb bi ñoo ci yem. ak opposition tey politiciens sénégalais ñoom ñoo sénégalais politicien sénégalais moo baaxoo ñoom nañu à à à à détruire l'image de la justice. sénégalais politicien sénégalais moo baaxoo. problème ak justice nga ne euh, y a pas de justice au Sénégal boo ñëwee wax leneen. politicien sénégalais moo baaxoo. politicien rek laa globalement su amee problème mu justice au lieu mu assumer ay fautam mu ne dañu maa ko. c'est-à-dire loolu du justice moo baaxul du magistrat yi ñoo malhonnête c'est les politiciens qui sont malhonnêtes Maïmouna Ndour Faye du Ousmane Sonko lañ jëkk a jiiñ viol ci Sénégal ñi ko fi jiiñ dañoo dem tribunal ñu atte leen ñu ci bari ñu relaxé leen bàyyi leen ñibbi seen kër loolu la waroon am ngoru def ko bi xale bi mu seqal ba ba mu ba mu am sañ koo jiiñ viol daa waroon dem ñu atte leen waaye daf na du ma dem wéj ci tribunal parce que ñii c'est des c'est de Macky Sall mais Ousmane Sonko. xaaral rek màggale xaaral màggale ba bi ci des mooy bi mu fi jiñee moom bay tooxi tooxi doonam bi lu ñu wax dama wujji mu ne duma leen wujji parce que c'est des magistrats de loolu man la boo fi déggee ñu njëngale magistrat xamal ne politiciens yi am problème bis bu yàlla sàkk dañuy daje boo déggee coow rek xamal ne tribunal correctionnel moo am problème ak i politiciens loolu nag ñun politiciens ñoo ko war a baax